gars yi ñëwaat nañ dañoo war a dàq sa place. ah waaye Ibrahima looy def. da ngeen war a dàq. <laughs> tey gaare ko fii baare yoon man nag ab gaaraam la ñuy dox dañoo jëlee fee pour ñu jóg mais lii nan la ñuy liggéey fii ak kat

ñoo ma jël moom jox naa ko. ñëwagul. yaa gën a de barke Serigne Touba ma nga sama lu mat cinquante ah. naa moo ko wax. Ah. barke Serigne jaa jox. alaaji bi

对。